إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا مولانا باي باي برعم مولانا باي إلا الله الله yaay mu ne kenn ku nekk ci ñun na def benn fatiha ñetti salaatul fatiha ñu addiyaal ko Maolana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ak mboolem njabootam gi bu ñu paree ñu baamtu ko addiyal ko maam Ibra Faal radiyallaahu ak mbooleem njabootam gi buñ paree ñu baamtu ko addiyal ko Seydi Ahmada Tidiane Chérif radiyallaahu anhu ak mbooleem njabootam gi ak ñun njaboot gi yépp sama yaay mu ne mu ngi sante yalla tay julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ngi sante suñ sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim nias Baye radiyallahu anhu di sante khalifatu ham papam Cheikh Mahi Ibrahim nias di sant imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé di ndokkeel Cheikh Mahi Aliou Cissé porte-parole Medina Baye di ndokkeel mbooleem njabootu baay gi mag ñi ak ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi mu ne mu ngi ndokkeel umma islamique bi yëpp di ndokkeel julliti àddina bi yëpp ci juddib yonent bi salallahu aleyhi wa sallam ci yoor yoor yonent bi salallah ai sallam bi ñu nekk nii mu ne sant yàlla alhamdulillah jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye jëfe maam Ibra Fall radiyallahu anhu sama yaay mu ne mu ngi sant mu ngi gërëm te mu ngi ndokkeel ñépp ndokkeel bi ak sant bi ak ngërmande gi mu ne mu ngi ciy jiital njaboot gi njabor gu gor gi ak njabor gu jigen gi mag ñi ak ndaw ñi mu ne mu ngi ndokkeel kat yi tuddu kat yalla yi dama waxon ci gamu gi ne siikar si jël na ci temps bi lu bari dafa waxon ci gamu gi ne siikar si jël na ci temps bi lu bari taxawut benn yoon. mu ne waaye daal lim gis mooy xaal bi moom taxawut benn yoon. mu ne buñ doon waxtaan tamit guddi gi ba guddi gi jeex. ci yàlla rek la waxtaan. ci yàlla rek la waxtaan. ak yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa moo nekk gën gi mbindeef. moo tax yàlla amal lépp lum amal ci xaalam bi moo tax màggal guddeem gi mu ne doy na sant yàlla kenn amut sikk ne màggal nañu guddeem gi màggal nañ ko ci wàccuwaayam ci xaalam bi bi mu dellusiwaatee di ngénte li tamit màggal nañ ko mu ne la ko maam baay bëggee jàng nañ ay kaamil addiyaal ko Mawlana Cheikh Ibrahim Niass anhu jàng nañ ay salaatul faatiha addiyaal ko Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye teg ko ci tënkal Maulana Cheikh Ibrahima Fall mu jotal ñu ko ci jëmmi Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye mu ne dañuy wax ne jokk ca kël a gën a joti mu jotal la fi nga bëgg joti ci jëmmi yàlla ji mu ne dafay wax toujours ne ñun am nañ sëriñ. ñetti maqaama moo am. mu ne ñetti maqaama moo am. këriñ. këriñ. sëriñ. njëriñ. mu ne ñun nag yàlla daf ñu dajaleeg njëriñ. mu ne jëmm ji ñu yàlla booleel. dafa juboo ak boroomam moo tax sant yàlla alhamdulilah. tuddukati yàlla yi. bu daan mu ne Busiri bu daan tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ngi tànk bu mu yëqi. gëlëmam ngi tànk bu mu yëqi. dañ koy natt àndaari or. dañ koy natt àndaari or. jox ko ko jox ko ko addiya ndax tagg gi mu doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëmm yi yi nga xam ne dañ fanaanee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg Cheikh Tidiane tagg Maulana Cheikh Ibrahima Niass tagg Maulana Cheikh Ibrahima Fall loolu amul payam lu dul yàlla wëccee leen seen yi ñuy mu ne rawatina yéen jëmm yu tedd yi fi daje nga xam ne ci yonent bi ngeen dajee jaar commencé jaar ci Seex na Ahmed Tidiane ñëw ci maam Baay ba ci maam Ibra Fall radiyallahu mu ne dañ leen di ñaanal yàlla yàlla wéral seeni baat amin yaa mu ne ñu ngi sant te ñu ngi gërëm mu ne taxawaay bi rafet na mu ne ndax meloo xaarifatu billaahi la lépp ci jëmmam ji la bokk mu ne aarifatu billaahi lépp ci jëmmam ji la bokk lépp ci jëmmam ji la bàyyee ko lépp ci jëmmam ji lay dellu xaatu mu ne te ñun ñoo bokk Maulana Cheikh Ibrahim Niass bokk tamit Maulana Cheikh Ibrahima Fall mu ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ak Maulana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu mu ne wa Ibrahima wa Ibrahima rek la wa xalilullaahi wa koosi wa koosaa mu ne kon kenn ki rek la koy firi. mu ne buñ koy firi. dañuy wax ne mbooloo mi yëpp. dañuy wax ne mbooloo mi yëpp kenn la. waaye kenn ki tam. waaye kenn ki mooy mbooloo mi yëpp. mu ne waaye loolu nag xaarifatu billaahi rek moo ko mën a dégg. xaarifatu billaahi bi tam. fatu billahi bu saf salatul fatiha rek moko meuna deg ndax Batin dafa am baatini batin am mune mu ngi ndokel njabotam gi sikar da fay wax njabotam gi ne fi ñuy laal foofu mooy génnee ronqañam dama déggoon Baye Tidiane Thiam mu ne dafa déggoon Baye Tidiane Thiam bu kuppe wax ci benn gàmmu yàlla ne. ne Aliou Thiam mi nga xam ne mooy Sikar Ma Urafal waayu bàyyi bàyyi leen ronq ñu mag ñi ngeen di génnee. mooy tax nit ñi di fëgg seen mu ne waaye loolu mooy tax nit ñi di fëgg seen dënn di daanu ci pee bi yàlla bi. mu ne moo tax sikkar leen. moom jox na leen digal moom. waxtu bu mu ne dafay wax ne waxtu buñ ko gisee. sikkar nañ sikkar. nañ tudd baay. nañ tagg baay nañ tagg maam Ibra Faal mu ne kooku moom am nañ ci liberté totale mu ne moo tax mu ngi gërëm di ñu sant ci jotaay bi nga xam ne wax na ne yàgg na lool mu ne yàgg na lool waaye jotaay ci yàlla la mu ne kon sant yàlla alhamdulilah. Maulana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu biñ ko laajee. Maulana Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu anhu biñ ko laajee. bi mu waxee sikarkat yi ne fan ngeen toll ci sikar. bi mu waxee sikarkat yi fan ngeen toll ci sikar. ñu ne ko ñun biñ xëyee. ñu ne ko ñun biñ xëyee. bam naaj. lañ foog ne baat la gën a a mën a sikar. waaye ci la baat yi gën a neex ñuy gën a mën a sikar. loolu ci gàmmu yàlla lañ ko ko waxee woon. ci gàmmu yàlla lañ ko ko waxee woon. maam noppi ba mam di suñ maam noppi ba mu yàgg. mu ne ah. ah. ba tey jotagu leen ma man Ibra ba tey jotagu ma man Ibra mu ne baay mës na maa woo ne ma Ibra ma ne ko ñes. mu ne ma Ibra Faal ma ne ko ñes mu ne ma Ibra Faal ma ne ko ñes ba muy ñetti yoon mu ne ko Ibra Faal kaay tuddal ma yàlla nam doon tuddee boppam ci haqiqatu muhammadiya mu ne ñetti fan mu ne ñetti fan lekkuma lekkuma naanuma tëdduma tooguma nelawuma moom Ibra Fall moo taxit allah baay ji saf na de mu ne maamam jëmmi mbëggeel la ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu mu ne boo koy laal rek bàyyi nga fay fekk mu ne waaye boo yéegee maqaamam mooy Ibra Fall mooy mbëggeel mu ne luñ bëgg rek maam la mu ne biñ bëggee tukki sax maam la biñ bëggee jabar maam la mu ne biñ tuddee baatu bëgg rek ci lañ yéeg maqaama Cheikh Ibra Fall ku ko yëg ak ku ko yëgul mu ne bi du sori parce que naaj na toogaay yàgg na. toogaay yàgg na. waaye damay joxe sama rek. mu ne waaye day joxe ngërmandeem rek. ci njaboot gi. ci njaboot gi. président yi. président yi. njaboot gi bootu ci seen gannaaw. njaboot gi bootu ci seen ginnaaw. réew yi ak dëkk yi ak bitim réew Sénégal ak diaspora bi ak mboolem àddina bi yëpp ak diaspora ak mbooleem ci àddina bi rek. maa mu ne fu fi njaboot gi nekk mu ngi lay jotale ngërmandeem ak santam. di gërëm suma gërëm fameem bi. di gërëm famille sama borom kër bi di Baye Malick. di gërëm famille borom këram di bàyyi Malick. ma famille bi su ma ko tuddee rek maa ngi ciy jiital euh, yaa Seynabou Thiam. mu ne famille bu ko tuddee mu ngi jiital suñu yaay yaa Seynabou Thiam. moom mi nga xam ne mi ngi ànd ak rakkam yi muy Nogoy muy maam Kumba ak rakkam yi góor yëpp ak seen jabari rakk yi ak famille bi ak seen i doom yëpp ñëw liggéeyal baay fii ci euh, PM bi. liggéeyal ko ci bisu yonte bi salaa salaam gàmmo ba gàmmowaat ñu ngi tëj seen kër yi. tëj seen néeg yi wàcc seen lal yi ñëw liggéeyal baay di fanaan ci biti di fanaan ci ci suuf ndax am gën a mal ne bàyyi rek bàyyi maa ngi leen di ñaanal yàlla yal yàlla fay leen yaa Seynabou yaa yaa Nogaye ak say rakk yépp ak seeni soxna sama yaay mu ne gis na li ngeen def tëj ngeen seen kër yi ñëw fii ci péeyu sëriñam gàmm ba gàmmuwaat ngir sàkku ngërmande Cheikh Ibrahim waaye mu ngi leen di ñaanal yàlla dëgg dëgg te du tey rek mu ne nag te du tey rek chaque année chaque nii la. liñ am yëpp dañ koy jël ñëw indil ko. am yëpp dañ koy jël ñëw indil ko ko. ak seeni njaboot. seen borom kër yi nangul leen. seen boroom kër yi nangu leen. ba ci xale bi gën a ndaw. ba bàyyi kenn. événement bii. événement bii. nga xam ne mooy événement Maulana Cheikh Ibrahim Niass. nga xam ne mooy événement Maulana Cheikh ñoom tamit mooy seen événement. jërë seen taxawaay yal na yàlla fay leen. sama yaay mu ne jërë ngeen jëf ci taxawaay bi yal na yàlla fay leen amiin. di gërëm famille Baye Malick. di gërëm famille Baye Malick Niass. ñaanal Baye yal na yàlla yokk di ñaanal suñ Baye Baye yal na yàlla yokk leeram amiin. taaf ñi ci barkeem yal na dëkk ak sëriñam daa iman amiin njaboot gim bàyyi ginnaaw yal nañ barke amiin bàcc nekk ca bopp ba bàcc nekk ca bopp ba nekk seen mag ñoom ñëpp nekk seen mag ñoom ñëpp gërëm di leen sant. sama yaay mu ne mu ngi leen di gërëm te di leen sant. ñoom ak seeni waajur yëpp. ñoom ak seeni waajur yëpp. gërëm di leen sant. sama yaay mu ne mu ngi leen di gërëm te di leen sant. di gërëm rakki bay Malick yi. di gërëm rakki bay Malick yi. ku ci mel ni yaa jaago jóge koo ba njaageen. ku ci mel ni yaa jaago jóge koo ba njaageen. ku ci mel ni ndey xadijatu. ku ci mel ni ndey xadijatu. jóge koo ba euh, saare alkaali. jóge koo ba saare alkaali. abi jóge ko ba Medina Sabax. ku ci mel ni abi jóge ko ba Medina Sabax. ku ci mel ni Ndey Mbow. ku ci mel ni Ndey Mbow. ak doomam yi jigéen yi. ak ñoom ñëpp ñëw nañ gàmmu si fii ci Medina. ñëw fii ci kër gi. bokk ak ñun guddi gi. ñoom ak seeni borom kër ak seeni famille yëpp. ñoom ak seeni borom kër ak seeni famille yëpp. Euh, kànd gi yàgg na. ndax kànd gi dafa yàgg. te rafet lool. li ko dalee ca waajur ya. li ko dalee ca waajur ya. ñoom ñoo daan jotaayu fii. ñoom ñoo daan jotaayu fii. bàjjen yi nga xam ne ñoo leen muy bàjjenam yi nga xam ne ñooy seeni i waajur. seen bàjjen yi mu ne bàjjenam yi nga xam ne ñoo ko ñoo leen jur ñoom ñoo ko yar. te yàlla rek lañ àndee. te yàlla rek lañ àndee. mu ne te yàlla moom du fi jóg mukk. te ñu ngi te ñoom ñu ngi gën di feddali kóllëre gi. ñu ngi rafetal. ñu ngi rafetal. ñu dox. lu xew. lu xew. événement bu xew. muy Tayba muy kosi muy gamu muy gamu wat lepp sen xel mu ngi ci kër gi ñew nañ pour dundal kër gi and ko mbolem njaboot gi ak fami bi ak taalibe ak dekkandor yi. bacci maa leen di ñaanal yàlla. bàcc sama yaay mu ne mu ngi leen di ñaanal yalla yow ak say rak. yow ak say rak. ak say bajjan ak say bajjan ak njaboot gi yëpp ak sa famille yëpp tamit mu ngi leen di ñaanal yàlla amiin maa ngi beral tam ngërmande sëriñ daara mu ne mu ngi beral ngërmande sëriñ daara sëriñ daara Baye Mokhtar sëriñ daara Baye Mokhtar Diassé Jim Sow Mohamed Sow. Mudir Jim Sow Mohamed Sow. mu nga ca Arabie Saoudi tey. mu nga ca Arabie Saoudi tey. ca Riyad. waaye xelam mi yëpp tey mu ngi fii. waaye xelam mi yëpp tey mu ngi fii. ñoo daan bokk bi. ndax ñoom ñoo daan bokk jotaay bi. mu ne ku am yitte la ci kër gi. ku am yitte la tamit ci daara ji. ku am yitte la tamit ci taalibe yi. ku am yitte la tamit ci wàllu taalibeem. ku am yitte la tamit ci mbokku taalibeem yi. mu di Mouhamed Sow ñu ngi lay gërëm suma yaay mu ne ci sa taxawaay. di gërëm Baye Mokhtar Diassé ndax ndaw la waaye ndaw lu dégg ndigal la ndaw lu yaru biñ tegee daara alquran ji ci loxoom ba léegi daara ji dafay yokk waaye dara wàññeeku li ko waral nag mooy mbaaxam rekk dégg ndigal jëfee taalibe bëgg alquran yal na yàlla fay leen yal na yàlla yokk leen ci zaahir ak ci baatin yaa rabbi mu ne gërëm na ndax xale bu xamul dara nga def ci dënnam bi alquran nga mu ne loolu yombut ndimbalal yàlla la yàlla la waaye ndimbalal Maulana Cheikh Ibrahim la ndax lam ñaanoon yàlla mu ne man ñaan naa yàlla alquran nekk sama karaama wallaahi ñas alquran nekk na karaamam ku gis xale yi ci daara ji wëttu alquran bërki démb te du bisu keroog rek am na ba ca bayaalu medina am na ba ca bayaalu medina ba loolu li ko waral mooy ñaanu baay gi rekk moo yegg si ñaani waliwu la ñaani xutbu la ñaanu borom jamono du dégg mukk maa bañ ndax moom dafa jubóog boromam sama yaay mu ne mu ngi ndokkeel daara ji di ndokkeel xale yi jàng ci daara ji yépp ñi tëri ak ñi tëreegut di ndokkel tamit seeni waajur waajur waajur ñu tëri ak waajur ñu tëreegut suma yaay mu ne ñoom ñépp mu ngi leen di ndokkel mu ne mu ngi ndokkel nag seenam bi nga xam ne mooy Kossy TV seen liggéey rafet na ci dans le monde. sama yaay mu ne seen liggéey rafet na dans le monde àddina bi yëpp ñu ngi rafetlu seen liggéey. àddina bi yëpp ñu ngi rafet lu seen liggéey. yéen a ngi ciy jokk mbokk. yéen a ngi ciy jokk mbokk. yéen a ngi ciy jubale. yéen a ngi ciy jubale. yéen takk ay xarit. yéen a ngi ciy takk ay xarit. yéen xamante. yéen a ngi ciy xamante. kon loolu lu rëy la. kon loolu lu rëy la. lii bi koy baay di samp. mu ne lii bi koy baay di samp. defee wut ko woon pour alal. defee wut ko woon pour alal. jokkale pour jokkale nit ñi. ñu nekk benn. ñu moo taxoon bàyyi def ko. kenn réeréwul ne Kossy TV. Kossy TV moom Kossy TV Maulana Cheikh Ibrahim Niass la. bàyyi ko moom. image rek moo ciy génn. image bi rek moo ciy génn. lim liggéey ci àddina bi monde bi rek moo ciy génn. dem ba Nigéria. Kossy TV mu ngi dem ba Nigeria ba Nigeria. di wane la fay xew. lolu bokku na ci sama ngërmande ci yeen wa Kossy TV. loolu bokk na ci TV. di gërëm Seydina Aliou Guèye. jambar la. mu ne jambar la. di gërëm Seydina Moussa Bitey jambar la jambar la. di gërëm xale yi koy jàppale yëpp ci Kossy TV ndax média yombul léeg-léeg nga branché ñu dindi léeg-léeg ngay caméra waa ji du mooyu mu ne waaye loolu yëpp sëyru leen ko te xam ne liggéeyu Mawlana Cheikh Ibrahim la tool la rek ku ci nekk ak waar wi mu ci jël ñun waar wi ñu ci jël dafa ànd ak média kon il faut ngeen mën a muñ yaatu te di nangu bu ko defee ngeen nangu li yàlla am mu ne ku nangu nanguloo moomul sama yaay mu ne Kossy TV mu ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay depuis première mawlud bi noppalewu leen lekku leen naanu leen nelawu leen ba tey gàmmu gi pare gàmmuwaat gi pare ak yeneen yiñ ci def yu demee ni ay conférence ay daje ay daayira yépp supporté ngeen ko def ko ba rafet seen image rafet na dégg ngeen digal tamit amul benn yoon boo xam ne jiwoo na ak yéen mësta am sama yaay mu ne jërë ngeen jëf. mu ne média noonu la parce que média. mën naa defar. waaye mën naa yàq. parce que fa muy dem. parce que fa muy dem. yow doo fa dem. te bu xasee ba dem. kenn mënu koo retiré. moo tax mu ne jërë ngeen jëf. gën leen góor góorgóorlu. gërëm na sant na. mu ne mu ngi gërëm taalibe yu mag yépp. maam Youssouf Babacar Cheikh Baye Dem euh, euh, Moussa Ka mu ne jóge ko Dakar ba Gambie yaa Fatou yaa Ndey Fatou Gambie ak ñi jóge ko ba Allemagne muy yaa Socé def na tout pour ñëw fekkee si gàmm bi ak moom ak famille tey ku mel ni Mouhamed mi ngi nii tey ci si la bàyyi ko rek dal si maa ak ñeneen ak ñeneen ci njaboot gi nga xam ne bii daw nay ñëw pour fekke si gàmm gi ñoom ak njaboot gi nekk senegal yëpp bokk nañ gàmm gi su mu ne bu waxee senegaal tudd na ñépp mu. mu ne bu waxee senegaal bàyyiwul kenn. gox yi ci la bokk. koñ yi ci lañ bokk. dëkk yi ci lañ bokk. lépp ci la bokk. mu ne gërëm na axlu bi ci seen organise euh, Keebaa ak maa alaaji ak njaboot gi ànd ak ñoom jiite ko. Keebaa ak maa alaaji ak njaboot gi ànd ak ñoom jiite ko. sawar ngeen lool ci yàlla euh, liggéey ngeen fii ci kër gi liggéey bu rafet ci gàmmu gi te wax nañ ko teewlu ngeen futteeku ngeen liggéeyal yonent bi ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass rabiyallahu anhu mu ne gërëm na sant na gërëm na taxawaay bi taalibe yi nekk fii daaru raxmati ak yi nekk gannaaw raay ñu nekk saam saara betuwaar njaafat warjaxal medina lew na mu ne njaboot gi ñépp ñëw nañu ak waa Dakar yi góor ñi ak jigéen ñi daayira jigéen ñi yaa faatu ñoom jiite ko ak ñoom yaa Suzanne ñoom ñëpp ñëw nañ daayira boobu dafa yaatu yaa Adja Ngom ci la bokk ñoom yaa kàngu mu ne xale yi jigéen yi dakaar yëpp ci daayira boobu lañ bokk sama yaay mu ne jërë ngeen jëf di gërëm roqiyatu nit nit ku baax la xaritu maam xadi la mësta tarde ak gàmmuwaat. xaritu maam xadi la mësta tarde gàmmu ak gàmmuwaat. di ko gërëm di sama yaay mu ne mu ngi lay ndokkeel di la gërëm te di la sant. di sant njaboot gi yëpp. di sant njaboot gi yëpp. di wax ne Fodé. di wax ne Fodé. sa organisé rafet sa organisé maire mu ne félicitation rafet na. rafet na yow ak Mbacke ak Papalaay. rafet na yow ak Mbacke ak Papalaay. ak xalé yi nga xamné ñu ngi bootu ci seen gannaaw. ak xalé yi nga xamné ñu ngi bootu ci seen ginnaw sama doom bi sant sama mbokk ak doomam bi sant ci tam. ak yi tamit. ci koñ bi. ci koñ bi. yëpp ngi leen di ci mu ngi leen di ndokkel ci wéru sëriñam. di wax ne. di wax ne. guddi guddi rek la ci yalla soxla won li rek la ci yalla soxla won màggal yonent bi ba bër set waaye matee na nag ci biñ ko màggalee ci buntu Maulana Cheikh Ibrahim Baay radiyallahu baay yonent bi rek la bëgg wax na ne man alaaji Ibrahima xellante woon ma nekk dàll yonent bi sol ma mu ne man alaaji Ibrahima boo ma photo man alaaji Ibrahima bu portale ba génnee jëmi yonent bi moo cay feeñ sallallahu alayhi wa dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa dafa bëgg yonent bi sallallahu ajina njëkkee jidda ñu jox ko addiya ju bëri ju bëri mu ñëw Medina siyaare si yonent bi sallallahu alayhi nekk ci xaal bu tàng jër ñaq tooy xëpp kenn ci njabootam jël musuwaar bu set fompal ko ñaq kenn ci njabootam jël musuwaar bu set fompal ko ñaqam ne ko añas addina bi yëpp xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa rek nga bëgg bàyyi dal dal ñëw ci kër gi yëkkati àddee jiñ ko joxoon jox ko kenn ci njabootam ñépp noppi mu ne du ngeen ma laaj lu tax ma jox ko àddee ji moom kenn ñépp sukk mu ne boo gisee ma jox ko ko seede gim seede sama bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam seede gim seede sama bëgg yonent bi sallallahu ci kanam yonent bi sallallahu alayhi moo tax ma jox ko àddee ji ñu jox ma mu ne kon kooku kenn mënu koo dab ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi mu ne kon ñun njabootam ñun ñëpp gërëm nañu sant nañu ci màggal giñ màggal juddig yonent bi sallallahu alayhi suma ci buntu sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass la mu ne maam nii la ko doon defee benn bis. benn bis. gàmmu jot na. gàmmu jot na. maam joxe li newoon ci kër gi yëpp. maam joxe li nekkoon ci kër gi yëpp. kenn ci njabootam ñëw yootal ko. kenn ci njabootam ñëw yootal ko. ne ko maam tey la gàmmu. ne ko bàyyi tey di. te li newoon ci kër gi yëpp joxe nga ko. te li newoon ci kër gi joxe nga ko. bu gan ñi ñëwee lan lañ leen di ganalee. maam noppi ba mu yàgg. maam mu ne ku moom gan ñi. moom ganale bi. ku moom ganale bi. mu ne ko bàyyi. mu ne ko bàyyi. mu ne ko du bàyyi moom gan mi. du bàyyi moom liñ koy ganalee. mu ne ko kon lu ci yoon Ibra Faal. moo tax. sant yàlla. mu ne nañ sant yàlla. alhamdulilah rabbil alamin yal nañ ko fekkee déwén yu bari amin ànd ak yokkute amin lépp léppi ngëneel. def ngeen ko ci. def nañ ko ci. sama njaboot. mu ne ñun njabootam. lépp lu ngeen am indi ngeen ko. am indi nañ ko. lépp lu ngeen defoon daaw. lépp luñ defoon daaw. fekkee benn la. benn la. ren def nañ fukk. waaye yal na yàlla fayante na yàlla fayante ñun amiin. defal ngeen yàlla. defal nañ yàlla. defal nañ yonent bi. defal nañ Seexu Tijaan. defal nañ Mawlana Cheikh Ibrahim. defal Mawlana Cheikh Ibrahima Fall. kenn ki la. baay moo doon yonent bi sallaay sax. baay moo doon Seexu Tijaan. ba pare nekk xul bu jamono. kon yàlla fayal ko. kon yal na yàlla fayal ñu yàlla. yal na yàlla fayal ñu maam Ibra Fall. yàlla ndax. ndax. bi mu waxee sama maam ne ko gis naa sëriñ buy xamle yàlla. bi noppi. ñëpp noppi. sama maam rek yëkkati loxoom. loxoom. ne ko Baye. ne ko man de xaw ma kenn. lépp lu yàlla am man Ibra Faal aw ma ci soxla lépp lu yónente am man Ibra Faal aw ma ci soxla lépp lu Seexu Tijaan am man Ibra Faal aw ma ci soxla waaye baay yow li nga am loolu la loolu laa soxla moo tax mu ne bu dawtoon ak Ibra Faal danaa fi jaar ba jàll te kenn duma xam Fall Ndiagayane na man El Ibrahima Niass yàlla binduma ci xalima ak ci xalima waaye bu ma yàlla bindoon ci xalima ak toppe mbaay nee na ni kon moom Ibra Fall lay topp moo tax kooku amut kem wa Ibrahima wa Ibrahima mbub mi la ak ki sol mbubb mi foofu benn différence amu fi yalla bëggloo ñu Maulana Cheikh Ibrahima Fall. yal na yàlla bëggloo ñu Maulana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu. yal yalla yalla bëggloo ñu Maulana Cheikh Ibrahima Niass amin ba paré nak nag xamal ñuko ba paré nak xamal ñuko ndax nit ki dana di xam am lo xamne duko xam. ndax nit dana am lo xamne duko xam. boko xamul do ci jëriñu. way yalla nañ ko xam yalla nañ ci jëriñu. ba di ci jëriñe amin sama yaay mu ne mu ngi gërëm njaboot gi yëpp. njabootu amadi Baye gi ma ngi leen di gërëm. mu ngi leen di gërëm. maa gi baye ko Dakar yëpp. ak njaboot giñ fi fekk. mag ñi ndaw ñi goor ñi ak jigéen ñi. talibé yu mag yëpp. sama yaay mu ne ñëpp mu ngi leen di gërëm. li ko dalé ci Ibrahima bi tey. Ibrahima Kebe. Papa Awa. Babacar Thiam Cheikh Kitaan Cheikh mu ndaw Aliou Ndiaye eh, eh, eh, Babacar Touré ak njaboot gi yépp mu ne bu yemee dafay juum kaar macha allah. yi nga xam ne ñoo yore woon liggéey bi saam itam. ak gune yi yore woon liggéey bi saam tamit. muy Baye Ndaw ak Demba Papa Demba ak euh, yeneen xale yëpp ak. Euh, Baye Makhtar Ndaw Papa Demba ak yeneen ak yeneen xale yëpp. xale yëpp rek di gërëm itam ñi ma jox euh, décoré. di gërëm tamit ñi ko décoré. décoration bi ngeen ma décoré kontaan naa ci parce que rafet na. Fodé suma yaay mu ne décoration bi ngeen ko décoré kontaan na ci ndax rafet na. surtout bi ne ci la ànd ak euh, président ñu siyaare ji Fass. mu mu ne surtout bi nga xamee ne ci la ànd ak président maam Youssou ñu nekkoon siyaare ji woon Fass Seydi Ahmada Tidiane Chérif. bay ñibbisi bay ñibbisi. mu ne ci lañ defoon photo boobu. biñ siyaaree Cheikhou Tidiane Chérif radiyallahu anhu ba mu taw. ñuy ñëw ci hôtel bi mu ne keroog lañ def photo bii moom ak maam yi su président mu ne xam naa ñoom ñi ko dessin xamuñ ko mu ne pour mu leeral leen photo pour buñ leen ko laajee ëllëg ndax taarix mu ne dafa war a leer mu ne dégg nga kontaan naa ci parce que def ngeen seen yéene ak seen mu ne kontaan na ci bu baax ndax defe ngeen seen yéene ak seen xol. defar nii mu ne yéen ñi ko defar nii yëpp. ndax ku nekk. mu ne ndax nit ku nekk. yéeneem rek la mën a def. yéeneem rek la mën a def. ak bëgg-bëggam. suma yaay mu ne mu ngi leen di ñaanal. fa ngeen ko defaree. yal na yokk nga xam ne day wër àddina bi yëpp ñëpp danañ ci defaru amin danañ dem ba danañ tiset yi ñu war a sol def ci baay ak maayu rafaal lépp ci yéen lay bàyyee ko amin yal na yàlla may leen loolu amin ci dekoore bi ngeen ko décoré mu ne rëy na ci moom mu ngi mel ni jamaa ngeen ko décoré ak ñun mu ne ndax nit ak yéeneem ak xolam lum ca def rek yàlla daf koy fay surtout nag ngeen defee ko ci weeru yonent bi sallallahu alayhi defee ko ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim sama yaay mu ne loolu lu rëy la ci moom yal na yàlla yokk leen amin yal na yàlla def leen mag amin def leen magu lislaam amin def leen mag yu bëgg baay amin def leen ndawi Maam Ibra Faal amiin ngeen nekk soldaari Maam Ibra Faal daayiman amiin sama yaay mu ne mu ngi leen koy ñaanal yàlla di ñaanal yàlla njaboot gi yëpp sama yaay mu ne taxawaay bi rafet na macha allah mu ne mu ngi ñaanal Maadi Jaata fii la fanaan ba bër set léegi la waa këram ñëw nuyuwante ak léegi la waa këram ñëw nuyuwante ak moom. kànd gi rafet na. kànd yal na yàlla fay leen. yal na yàlla fay leen amiin. ci barke yonent bi sallallahu alayhi amiin. barke Cheikhu Tidiane Cherif radiyallahu amiin. barke Maulana Cheikh Ibrahim amin yal nañ ko teewee ndegen déwén amin yokk ci zaahir ak ci baatin amin képp ku ñëw ci gàmm gi yàlla na nga delluwaat ci jàmm amin yal nga ñibbi ci jàmm amin yàlla garanti yoon yi garanti waruwaay yi amin garanti jëmm yi amin garanti kër yi ñu bàyyi gannaaw amin ci barke Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu di wax ne. wallaahi gërëm nañ sant nañ. wallaahi gërëm nañ sant nañ. temps bi euh, gàtt na. temps bi gàtt na. mënatuñoo continuer. mënatuñoo continuer. waaye kàddu ngërmande rek laay joxe. waaye kàddu ngërmande rek lay joxe. ci yéen sama njaboot. ci ñun njabootam. dëgg naa leen. dëgg dëgg sama yaay mu ne gërëm nañu. ku nekk mën naa yëkkati sama loxoom ne gërëm naa mu ne kenn ku nekk ci ñun mën naa yëkkati loxoom ne gërëm na ko alhamdulilah. mu ne bëgg nañ ko. nangul ngeen nañ ko. xitmaal ngeen ma. xitmaal nañ ko. nangul ngeen ma ci sama pays. nangul nañ ko ci pays sëriñam. lu ma bëgg rek bëgg ngeen. lu mu bëgg mu ne ñun bëgg nañ ko. yal na yàlla fay leen. yal na yàlla fay ñu amiin. fay gu du am fu mu dalee du am goo xam ne fu mu yem ak fu mu dalee kenn du ko xam ci dayoo. doom ba ci seen i sët ba ci seen i sët sëtaat. suñuy doom suñuy ba ci suñ sët sëtaat. yal nañ am ngërëmal yàlla. yal nañ am ñun ñëpp ngërëmal yàlla amin yal na yàlla dimbale diine islaam amin yal na yàlla dimbale tarixa bi amin yal na yàlla dimbale faydu bi amin yal na yàlla dimbale pay bi amin yal na yàlla dimbale njabootu pay bi amin yal na yàlla dimbale njabootu maam Ibra Fall amin yal na yàlla dimbale njabootu maam Baay amin mu ne mu ngi ndokkeel mbooleem njabootu bu àndoon ak Baay Seydi Aliou Cissé Serigne Ousmane Ndiaye radiyallahu anhu Serigne Omar Touré Serigne Mbaye Niass Maam Malla Thiam Euh, ak euh, muqaddam yi nga xam ne bii ñoo xitmaal yi nga xam ne ñoo xitmaal baay. ba am ngërëmal baay. baay. yal yàlla fayal ñu leen amiin. mu ne mu ngi gërëm ñëpp moom yaay. mu ngi gërëm waa bitim réew. ñi ñoom la bokkal ci yonent bi sallallahu ñi nga xam ne ñoom la bokkal ci yonent bi sallallahu ndax ci bitim réew. nekkee soppe taalibe Seexu Tijaan yi. ni mu nekkee soppe taalibe Seexu Tijaan yi. nekkee noonu la nekkee soppe waa kër maam borom Touba. noonu ci Sénégal ak ci bitim réew. ci Sénégal ak ci bitim réew. mu ne kon umma islam bi yëpp lay gërëm. sant mboolem ñi ma bokkal ci yonent bi sallallahu alayhi kum bokkal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. sant julli ci àddina bi yëpp. di sant umma bi yépp di wax ne euh, gàmmu nañ ci jàmm gàmmu nañ yal nañ ko teewee ndegen déwén yokkute ci zaahir ak ci baatin amin képp ku fi bàyyeekoo yàlla nga yokk amin ba yëg ne yokk nga amin yokk ci xam-xam amin yokk ci maarifa amin yokk ci maqaama amin waaye yokk ci wërsëg amiin ci barke yonent bi sallallahu alayhi barke Cheikhu Tidiane Chérif radiyallahu anhu barke Maulana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu barke Maulana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu barke weer wi barke mbootam weer wi barke jëmm ju sell ji ci wàccee mu yonent bi sallallahu barke pee mbarke mbootam peeñ yi mbarke guddi gi mbarke mbootam guddi gi mbarke yoor yoor bi mbarke mbootam yoor yoor bi mbarke alquran mbarke salaatu fatiha mbarke allahuma salli ala sayyidina amin amin amin amin amin amin amin yaa rabbi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa maxratan uxra ba beneen yoon jërë ngeen jëf awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali bani lam yasal nuruhu bi ayni ilaahi